taala wa barakaatu mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen site bii di seen Xibaar euh, ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di nuyu mbooleem mbokk yi di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi saaxibul fadila wa imaam cheikh cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ak mbooleem njabootu cheikhul xadim yépp di ñaanal mbooleem fu ab jullit nekk rek kooru jàmm ak salaam gu ñu nangu euh, mbokk yi seen ñetteelu naafile gi ci téereb Sëriñ bu bii ñu tuddee xuratul ayni ñetteelu guddi gi muy ñetteelu naafile gi Sëriñ bu dafa wax ne ku ci julli juróom benni rakka raka bu ci nekk fatiha ak inna ansalnaahu benn yoon fatiha benn yoon inna ansalnaahu ak kaafiruun lu ci nekk ñeenti yoon inna ansalnaahu ñeenti yoon kaafiruuna ñeenti yoon mooy xul yaa ayyuhal ansalnaahu mooy inna ansalnaahu fii laylatil xadr nga def ko ñeenti yoon def xul yaa ba mu jeex ñeenti yoon nee na dana mel ne ko goreel junni jaam ak ku ak ku jox ndogu junni ñu woor wodd junni ñu rafle leel junni ñu xiif dees na ko ca bindal itam tuyaaba ju toll ne limub njanaaw yépp limub njanaaw yi ci àdduna yépp te dees na ko ca defal li li jëkk mu ne dees na ko ca defal li ñuy defal jaami yàlla yi gën a baax nee na boo ko defee dinañ la defal li ñuy defal jaami yàlla yi gën a baax ak ñi dee ci xare te dees na ko deesu ko fitnaal ci bàmmeel te deesu ko ca mbugal itam kon loolu mooy guddi ñetteel gi dafa wax ne képp koo xam ne julli nga ca ca guddi googee juróom-benni rakka rakka bu ci nekk inna ansalnaahu ak kaafiruuna lu ci nekk ñeenti yoon dana mel ne ku goreel junni jaam ak ku jox ndogu junni ñu woor woddu junni ñu rafle leel junni ñu xiif dees na ko ca bindal itam tuyaaba ji toll ne limum njanaaw yi ci àdduna yépp te dees na ko ca defal li ñuy defal jaami yàlla yi yi gën a baax ak ñi dee ci xare te deesu ko fitnaal ci bàmmeel te deesu ko ca mbugal mbokk yi loolu mooy seen ñetteelu guddi gi ngeen àndoon ceeg Ousmane sekk ndongol borom Darou Mouhty wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin